Mm-hmm. te président Macky Sall mii de bi mu fi bi nga xamante ni Abdoulaye Wade nekk na fii yëkkati doom doom ji jox ko juróom-benn ministre. Mm-hmm. nii laa doon taxawee di ko défendre. waaw waaye nag man dama bëggul kuy dëkk kuy tooñ. Ah. maanaam nit ñi buñ taxawee di la tagg. di la wan yow ku sell nga yow de ku baax nga yow de ku rafet jikku nga mm-hmm. xam nga sa bopp yow. yow wóor na la li ñuy wax ci yow. bu dee dëgg xam nga bu dul dëgg xam nga. te waroo mooy nekkoo ci dëgg ba noppi te doo dëkkooroon newu ci dëgg hmm. maanaam wa di wéy ci njort nit ñi te yow sa yàq nga am yàqin ci bu wóor nit ku bon nga maanaam nit ñi di taxaw di la tagg hmm. te mu wóor leen yow doo nit ku baax loolu mooy waru hmm. loolu mooy waru ndax yow li nga jàpp ndax alxuraan dafay wax ni bali lisaana xalaa nafsihi basira ñe doomu aadama xam na mbirum boppam walaw alxaa maasira waaye nag bu wutul woon boppam ay lay ay ngant. di nga yàlla suñu borom bu mu jàllee kenn ku ne yaa gën a xam sa bopp sa morom. Mhm. boo baaxee xam nga boo bonee xam nga. Mhm. nit ñi mën nga leen nax waaye ba yàlla mën si koo nax. Mhm. président Ousmane ko nag li ma gis ci moom convaincre na ma. te am naa sañ-sañ nag ndax cette citoyen la sénégalais la. noo gisee Khadim Boussa sortie yi nga xam ne moom waaw bu sa ay waxam. waxi démbam da koy weddi moom ci boppam danaa wax naan toroxlu. jëm ci buur yi. Ah. loolu ak di wane ni maanaam. Euh, Euh, réew mi kenn ku ci nekk. war nga am nañu nañu moytu daal di politique di politique ki te fi ne nii moom. xaadim ma xamoon ak mi ma gis nii bokkut. Ah. waaw ndax sëñ bi dafa wax ne. Mm-hmm. tawaaduhun toroxlu. Mm-hmm. ilal xani jëm ci aji woomal. Mm-hmm. asaalih ku aji yiw. sëriñ Tuubaa nee na yusiibu dana demee sullu say diini kulli saalihin sa ñaari xaaji diine sa diine bu doon ñetti xaaj la nee na nga toroxlu jëm ci ku baax. nee na ñaare ñàkk nga ko. nee na amaa tarawa dun daal torox nag li zalim jëm ci aju tooñ nee na falaa yabqaa du des mi na diina ci diina ca layaa dun dara torox nag jëm ci ku baax koo xam ne dafa woomal sa diina bu doon ñetti xaaj nee na ñàkk nga ñaar ya bu dee nag ab tooñkat nga jëm nag nee na moom diina ci des dara desutu fa kon nag moom li mu doon jàngale bu jëkkoon daal na mu doon doxee doxeenu imaam la waaye doxin wii mu doxee nii moom mooy doxin koo xam ne kuñ jox xaalis la mm-hmm. kuñ jox xaalis la nit nag ma la lekk li gën a taal réew mi gën a ja maanaam gën a indi ay jafe-jafe ci réew mi moom du dara lu may ñàkk a maandu te ñàkk a li koy indi mooy ger joxe xaalis bii ñuy jox lañ war a bàyyi askan wi ñoo bokk réew mi di tànn ay benn benn nit di jox nit ji bàyyi nii lañ ko bàyyi lu ñu war ko jox nit ñu nañ ko dugal ci wàññi dund bi buñ ko dugalee ci wàññi dund bi rek jox nañ ñëpp waaye di tànn ay nit di leen jox ay 4-4 ak di tànn ay nit di leen jox wutal ay promotion di leen jox ay suuf loolu dafa war a jeex ci réew mi bu ñu bëggee jàmm ah, sax fi loolu kat mooy dëgg. yaa ngi wax xaalis tànn ay nit leen jox xaalis eh, am kenn koo xam ne jamono bu nekk ñu ngi koy cité ci nguuru Macky Sall eh, te lu ci ëpp buñ ko cité ci wàllum xaalis la ñuy muy Farba Ngom. waaw Farba ngoom moom dafa leer nañ ñi moom moo taxawal boppam sax ci assemblée. Hmm. daal ni Mimi Touré mii bi mu génnee. waaw mu ne ko yow daanaa indil xaalis. Hmm. waaw xam nga loolu rek de ça. de respecté wi. xam nga réew loo xam ne ñun ñoo ko bokk. Hmm. ay njiit di taxaw. di wane ni man mii yow yow maa la daan indil xaalis dangam ba noppi continuer ci biir gouvernement bi di yor poste yi hmm. manifeste yi ñuy def nii rek ay oto yu baree bari la ñuy jël hmm. di ko ko luye di ci ñàkk xaalis bu du bare bare bari ku dem dañ lay fay hmm. manifeste Macky yi muy def nii yëpp da ci day fay nit ñi ñu dem foofa tournée économique tournée économique loolu lépp alal réew mi la garnaat yi ñuy sànni di ko sànni ci askan wi dafa seer trop loolu lépp alal réew mi la dañ mooy tandi ko yàq gi nañ benn quatre-vingt mille waaw xam nga loolu rek dèjà loolu rek dèjà am na fu mu xaj am na fu mu xaj te gis nga ah xam naa ni day ànd ak sa xel baax na ci. réew mi day sonn nañu ñi ngi dajale nag bis dana dikk day. bis bu buñ ko yëlboo bis buñ ko yëlboo dana xam ne dana xam ne dana xam ne maanaam ci njëkk fi jot waaye waa jotu jotu fi woon ci doole. waaw na delloo si xelam te xam ne yàlla mooy jeexal ak nguur. Abdou Diouf jaar na fi Abdoulaye Wade jaar na fi Senghor jaar na fi ñooñu bu buñ ko gën a gore ba mu nga laa langaa métu ci si nga ab sëy boo demee ba ñu nga bëgg a sëyal taxaw ne sëy bi doy na buñ la gën a yow bu bul kon ne bëgg leen a forcé waaw kon loolu mën na ko bàyyi xel bu baax a baax a baax te ku ci waxit nga bàyyi xel yàlla ku ci wax nga bàyyi xel yàlla ci li ngay wax Ousmane Sonko julit la comme julit ñëpp mm-hmm. dégg ab taalibe la ndax li li taalibe yi def def na ko ndax su ko nu léegi nag ku taxaw ne Ousmane Sonko mii du julit wala du du du taalibe te du taalibe sax loolu wërta am wërta am solo ndax fii na Sénégal ñëpp du ñuy taalibe ñëpp ñëpp maanaam duñu du duñu du ñu du duñu ay julit sax waxuma laa nag di bokk ci yoonu murit est-ce que sax foofu la war a dem. wërta dem foofu ngir ngir. nit ku nekk yaa am nga droit am nga droit sax am nga droit sax tànn la la neex. Sénégal gii doon fi nekk fi yéefar du fi sax du fi dëli ci du fi dëli ci ci ci li ñuy sukkan li ñu àttewu. waaw te ñun bu ñu seetloo ñun suñu mbokk chrétien yi. jikko yu baax yu baree baree bari yor nañ ko. waa fi na nit a ji ñun ñii nga xam ne ñoom la ñu tuddee ay julit leen tuddee ay tari ñu bokk ci tarixa mm. sooy xool li ñu ñi may def ci ci jëf ju ñaaw ñu ña nekk ca ci chrétien yi ko nañ bàyyi xel dañ jéem a suñ jikko nañ jéem a gis gis nañ keroog euh, sa sa sa bi moom moo ma ci indiwaat sax keroog euh, Bamba Kassé euh, imam Dramé mi ngi wax benn hadis boo xam ne nee nañ yonente bi sallallahu alayhi moo ko doon wax muy ki gën ci yéen mooy ki jàng ba di ko xamlewaat moom dafa mel ni bi ko imam Dramé waxee dafa dafa énervé wu ne loolu waruñu koo mën a wax quoi waa xam nga loolu moom hadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la moo ne xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci nit ñi mooy ki ci kiy jàngale alquran maanaam ki xam lu alquran di ko xamle waaye nag bu ñee xam lu alquran mooy dund alquran alxuraan nag boo ko dee dund da nga respecté sa mbokkum jullit àddina nag yàlla moo ko bindee ni ki nekkul ki nekkul ab jullit loolu du doon loo xamante ni lu muy mën a dégg déggin bu bu rafet la waaye nag lu mën a xew rek loolu moom àddina moom yoon loolu la ko yàlla bindee. yoon kase comme tey bu fekkoon ku dul jullit moo énervé wu mais bamba kase ku nekk jullit. Hmm. ku ne jullit laa ba pare est-ce que buñ la waxee waxee yonent bi yonent bi beneen nangam war nga koo discuter war ngaa nekk di ko. déedéet waru koo discuter ndax ab jullit moom soññ dingat yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp loo xam ne dañu ne xadis la muy xadis bu wër di xadis yonent bi ku ko dingat rek da nga daal di murtat ab jullit soññ te dingat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu li ñu suñu borom digal moom rek la moom la ñu yàlla wax ni atiiwu laaha wa atiiwu rasul te nga ko ba muy wax atiiwu laaha topp leen yàlla wa atiiwu rasul gis nga rasul gi mooy lan waxu leen topp leen Muhammad de hmm. maanaam rasul gi topp leen ko ci li muy woote hmm. li te yàlla yonte bi moom li muy woote mooy li ko yàlla digal li ma jubla wax foofu mooy du deret du du deret lañ ko maanaam lim lim topp leen ko ci ndax ndawul yàlla la hmm. yàlla moo ko yónnee lépp lu mu wax yàlla moo ko wax loo wa maa yunfiqu anil hawa du wax mukk ci bànneex kon ab julit pour ak njultam mat faw mu attewu ci yonte bi zahiran wa batinan lépp loo xamante ne yonte bi digle na ko mu jëf ko lépp lu ko tere mu bàyyi ko wa maa ataakumu rasulu fa xuzuhu wa maa naakum xanu fantoxo loolu yonte bi digal def def leen ko lu mu leen tere bàyyi leen ko ko lëre googu na ngeen ko jéem a matal hmm. te yonte bi nee noon mbindeef de su ko topp te lees koy la nga koy topp yaa ngi ciy jëlee merum yàlla hmm. wallahu wa a ahaqu an yurdu in kaana muminan booy wut ngërëm na ko wute ci yonent bi wala nga wute ko ci sunu borom tabaraka tax la waaye bu ko wute ci ngërëm loo xam ne la nga ngërëm la ngay muccoom du neex yàlla wala muy neex yonent bi te jamono yu ñu toll ñii wut ngërëm ni ma leen gisee ngërëm la wut te borom xaalis lañ koy wutee hmm. te mooy nguur gi nii ñuy doxee rek jox la xaalis nga daal noppi muy def lu du dëgg nga toog di seetaan loolu fa muy mujj mooy révolution lay mujj gi réew mii révolution moo koy defar de nii nga xam ne la ñu nekk bu fekkee tegguñu seen tàgg fa ñu mujj du neex kon nañ président Macky Sall na dellu si xelam te xam ne yàlla moo ko dénk nguur gi bu jeexalee na ko delloo ci njëkk bu mu ko toj bu dee am nen la bu mu ko toj toj ko nag mooy dugal nit ñi ci dugg dugg ci garawaay maanaam di jéem a attewoo ci loo xamante ni wóor na ñëpp ni lii ngay attewoo nit ñi fi na ni lii nga xam ne ci lañ woo Mame Mbaye Niang yi nit ñëpp leer na leen naññi daanaka fi na ñoo fa nekk di dem ay yoon ak yooyu waaye man Ousmane Sonko boo ko doon digal boo doon déglu du wuy ji du dem fenn la dem dañ koy fekk këram kay jàpp ko tëj tëj yaa ngi dégg wala ñu ah, bu ko defee peuple bi génn at at yëf yi mu jeex. Hmm. mais aw yoon amatul seen diggante. aw yoon amatul seen diggante. Hmm. bu mu yaakaar mukk mukk ni bis bu wujjee daañ ko atte ci yoon. Hmm. seeraas la jëm rende lañ koy def. bu demee dañ koy rende fañ jaar xalifa sàll jaar fa Karim Wade foofu lañ jëm ak moom. kon nag na xam boppam. peuple bi nag nañu am fulla ci jóg jàkkaarloog li fi nekk système bi ñu fi nekk ni ñuy dunde nii baaxut baaxut. waaw nañu jëloo seen xel te xam ne réew ñun ñëpp ñoo ko bokk te bàyyi séddale bi lañ war a bàyyi séddale jëpp lañ war a bàyyi ñëpp a yem ay àq ci réew mi loolu mooy dëgg mm-hmm. laa réalité loolu la waaw jërëjëf sëñ Moussa Diakhaté bu fekkee am nga loo xam ne bëggoon nga ko wax te egsi wuñ ci comme laaj peut-être suñuy xel egsi wu ci wala ak nu mu ci mën a demee nga ñëwaale ci su ko defee ñu mën a tàggoo jeexal waxtaan waaw xanaa rek euh, mooy rek li ma wax rek mooy ñu bañ a bañ bañ cee bañ dara rek. Hmm. bañ cee bañ dara rek. ndaxte nag ñi nga xam ne ñoo taxaw fas ne gouverner waat ay mineurs lañu ay mineurs lañu ñu hmm. néew lañu. Hmm. waaw te baadoole yi ñoo war a jóg jëraat seen bopp. xam ne lii nga xam ne moom la ñuy dund. ñu moytandi ko. kilifa diine gii taxaw daal ne Macky Sall moo gën a tiré moom mu defaat troisième mandat. intérêt boppam moo tax mu di ko wax. intérêt boppam waaye du intérêt réew mi. Hmm. waaw intérêt boppam nag nit kuy wax nag sa intérêt bopp. est-ce que